Ahmed tiiral ma frein Ahmed ma gis ah, baax naa def saaf ya jaa permis de conduire ak assurance ak carte grise nga boole ci vignette bu gaaw tout de suite allez sa frère bi jàppul de. ah kon da ngaa bëgg na léegi man waxuma dëgg quoi en tant que agent wax ak yow nga naan may bi jàppul. waaw ban puusal oto bi lii oto bi puusaw lii lan la waaw mais avancé ak puusaw leen wutale eh xoolal bu ma fontoo ah. bi baaxul. xoolal taa xoolal xoolal bu ma fontoo laa ba dugal sa borom xoolal day oto bi dox naa yënguwul toogu sal ba concert na baax mais oto buusa la nga oto buusa waaw xoolal xam naa bul yàq sama liggéey waaw ah. ah, man bul yàq sama eh koy denc sa xaalis koy jox xaalis ci mbedd ni waaw yow da nga xamul fii ni job bi joxe waaye la sa gannaaw nga may jéem a jaafee eh. voilà la prochaine fois ay affaire yi bëgguma boo ah, xamal li ma la wax voilà arrêté nag bu la ah, boo dikkatee rek <laughs> yow xamee naa la booy jaar côté bi bari na ok merci beaucoup ok circulez bougez ok allez